tout de suite euh, Cap Skirring lan dem Cap Skirring ma nga ci boori Ziguinchor tey jii euh, population bi danoo jóg ci en direct ci jamono bi ñuy wax ak yéen mu am euh, population bi danoo jóg ndax nag ñoom danoo xawoon am tuuti ay ci wàllum ndox ndax ndox moom moo fa jafe woon am trop début manifestation bi loolu moo ko waraloon ak wàllum takk masque yi nga xam ne dañ leen ciy fayloo amende 6000 francs waxuma la sax nga ñàkk ko takk mais boo ko takkee te tëkkoo ko takk bu normal sax maanaam la see jàpp fayloo ci 6000 francs ci mbir yooyu nag moo leen dérangé ba tax na tey ji ci suba euh, jamono bii ñu jóg dem euh, di manifester wu dem ba ci côté brigade ba jàppante am na ci diggante si ñoom ak euh, takk der yi ba wax na ne am nañ ci gaa gaañu xam na danañ ko toppaat bu baax a baax a baax am na ñu nu jàppoon ci ñoom ñoom aussi tamit ñu am kenn ci responsable yi maanaam daal ñoo xam ne dañ leen a jàppoon ci agent yi nappe leen comme daal na ñun bu ñu jox suñu duñ leen jox seen nit finalement libéré nañ ñoom euh, ñi bokkoon ci ñoom muy population bi ñoom it ñu libéré ki nu jàppoon kon actuellement xaw na amandik dal pour le moment nii am na nañu ay nit yu nu fa ndaw yu nu fa nekkal donc danañ ko topp ba xam exact mbir mi fan lay mujj ndax réaction dana jóge ci côté euh, police ba euh, wala gendarmerie ba ci mbir moom nga xam ne am na foofu lee lan moo dëgg dëgg taxawaay bi ndax fi mu tàmbale ak fi mu mujjee dëgg dëgg jaaxale nañ ndax marche pacifique la commencé woon mais dafa mujj am ay laala yu xaw a doy waar foofu ci Cap Skirring mais jamono bii na xel dal que ne am na ak dal gu ci amandi incha allah dinañ ko topp fii ngoon